Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Président, chers collègues, chers collègues maires, chers collègues de la presse, M. Monsieur le Ministre Manglénu, Accès Directeur, directeur. Monsieur le Ministre de l'Environnement, fi may dooree place de Géejawaay bi est né le 7 juin 1967 Moi ñi waaye une partie de Gounass am na ñoo xam ne ñoo ñëw fa jiitu ña Senghor dugaloon ca camion yi indile filao yi nga xam ne moom lañ fa saxal en 2017 dañ ne durée de vie wu yi cinquante ans la filao yi ñoo dee waaye ñun goruñu ko te loolu amul filao yooyu nga xam ne dañ ko fa dindi nag taafantaloo VDN 3 bi ñu gouverneur annoncé barki démb ne péage lañ koy mujj def dëkk bi ñu bëgg ko jaay loolu lañ bëgg nag filao yooyu ñu ne woon durée de vie bi cinquante ans la ñu bëgg ñu reboiser waat te VDN boobu ñu doon taafantaloo du loolu de lañ taafantaloo mooy terrain yi nga xam ne jël nañ ko caxat-caxatee ko jël ko caxat-caxatee ko jox ko ay doomu aadama yoo xam ne yaa ñu leen gën a xam yow ak ñii toog sa ginnaaw ak ñi nekk sama ginnaaw ak ñii nga xam ne ñoo féete terrain yooyu nga xam ne dañ koo jël nag dagg filaawo yi ñun liñ bëgg mooy filaawo yi nañ nañ dellu si waat foofu noonu ci géejuwaay te géejuwaay googu kenn du fa def dara sans la population bu la neexee nga saaga comme que noonu lañ la yare vous comprenez dañ ne kenn du def dara ci taatu géej googu noonu ci loo xam ne population bi yëguñu ko te filaawo yi ci boppam am na ko dëkk Cambérène ku ko wax wax nañ ko léegi nii loolu moom bëggoon nañ ci wax cinquante ans yéen ko gor vous gérez l'environnement da ngeen a war a ñëw kon reboiser waat fa balaa ndox ma di song population bi ci boppam ngeen di taafantaloo ay talité suuf si moo ngeen soxla même boo nekkulee ministre de l'urbanisme même boo nekkulee ministre de l'économie et des finances nga xam ne dañ ne ñoom ñooy gérer tout ce qui est affaire habitation waa impôt domaine ak yooyu vous êtes chargé de de de de l'environnement kon loolu yaa ko war a indi balaa bu ëllëgee musiba mbaaba kumba di am ci taatu géej beneen bi ñu daal di ñëw dellu siwaat ci le code bi honorable député Ibrahima wax ne état wu Sénégal amuñu ay moyens yoo xam ni moom lañ koy financer yéen loo leen bëgg financer financer lu leen neex lu leen neex ngeen financer lu leen neexul nag moom lépp loo xam ne xeetowul ak wàllum politique moom doo leen ko laal benen bi nañu dal ci dé si ci BRT bi monsieur le ministre il y a un budget qui a été dégagé pour reboisement aménagement paysager lañu waxone au début ak plus de 3000 emplois ay jeunes yo xamné ne dañ ne géejawaay ñëw ba ville dépôt bi géejawaay la jógee ba fi ñuy àddoo France géejawaay nag xam naa boo demee li tax ngeen xaw a ci yooyu ngeen jëloon nonu yépp moy li yalla dogal yalla nak mom moy joxé nguur. honorable député wax na ko maam sey yàlla mooy joxe nguur na ko nit ñi nangu boo jeexalee nag nga dem boo bëggee toogaat puus nga ñaan ko ci njëkk ak teraanga njëkk naka fi amul parce que mbir mi ay këyit moo ñu lié c'était un rendez-vous d'un Sénégalais avec son peuple en 2012 muy ñaari mandat mandat ba jeex na mandat bi nag bu jeexee waaye yow yaa war a ñaan njëkk ak teraanga ñu may la juróom benni weer wala nga dem léegi nag yéen man da ngeen may ñaan rek ci njëkk da may ñaan ci njekk ma bañ a dugg ci wàllum politique parce que bu ma duggee ci wàllum politique yéen ñëpp di ngeen génn dem monsieur ministre fi may daanelee mooy forces armées am na fi intérieur am na fi ñu jekk ci ay ngànnaay lool waaye kaay leen ngeen jëmbati garab kaay leen ngeen di ay garab ngeen def une commande de quarante cinq milliards de francs CFA loolu jur fi coow loo xam mu jul mujjul fenn ñu gisuñu waaw mais loolu kay leeralal ñu ko monsieur le ministre fi may daanelee mooy pollution yi ñu doon wax pour nag ñu appliquer ko bu dee mbirum jàngi la bu dee mbirum ngéntey la ngeen wax xam nga yow yow yow alimaane yéen dañ leen a yërëm parce que li tax ñu yërëm leen mooy ay fana leen fi dese yaru ah waaw maa ngi leen di gërëm di len sant La parole est à notre collègue Awa Diène.